jërëjëf mbokk yi bàyyi xel seen site bi di 24 actu yi tey nag ñu ngi fii ci Gaabu Ndaw Gaabu Ndaw nag tey ñu ñëwoon seet si leen ba xam gerte gi yomb na wala yombul ba xam sinwaay yi ñu ngi koy jënd wala sinwaay jënduñ ko ñu ngi koy jaay nguur gi wala jaayuñ ko nguur gi ñu ànd ci nag ak suñu caméraman Modou Diouf léegi-léegi dingeen ngeen ci xam dara incha allah maa ngi sant buur yàlla Abo Badiane gerte ren moom bëriwul ren ren moom vraiment gerte gi bëriwul amul poids waa instant bi waa ñi ngi ko doon jaay mais instant bi xaw naa taxaw li waral taxawaay bi ñu moo bon mooy gerte gi dafa xawut a bëri ñu nga doon jaay chinois yi mais biñ ko commencé jaay chinois ñu koy deppo chinois yi amaguñu occasion pour génne ko dëkk bi te aussi jënd di stocké rek su yàggee duñu am sax magasin bañ ko stocké waaw parce que Séné état Sénégal moo leen waroon a jàppale pour ñu génne gerte gi baykat bi comme que li mu bay bëriwul mu am sens jaay ko sax prix bu bu xaw a tane pour en cas mu sawar a dem baywaat beneen année mais fi mu ne nii da ngay ñiy jaay gerte gi mënaguñ koo mënaguñ koo yóbbu danañ jënd mais suñ stocké lu xaw a yàgg duñ ko mën a yóbbu moo tax fan yi prix bi dafa xaw a wàccaat tuuti. waaw parce que euh, chinois liñ mën ci gerte gi. état bi mënu ko ci parce que usine waa bi mi ngi doon jëndee cinquante kemb gi hmm, bon usine bi di jëndee ay 250 su ko defee usine waa bi li muy jëndee moo gën a moo gën a kawe kii bi doon jëndee. waaw parce que ñun euh, dañ koy décortiquer jaay ko ñun amuñu prix bu ñu arrangé ñun li ñuy jëndee rek la ñuy jaayee ñun su yombee ñu jaay usine ñu jaay usine waaye fu mu gën a cher rek ñu def fa ñun amuñu ko ñu ci arrangé. waaw mais baykat bi nga xam ne mooy bay moom chinois bi moo koy gën a arrangé waaw baykat yi moom chinois bi jënd moo leen di arrangé parce que ñoom ñu ngi jënde jëndee 300 waaw mais instant bi instant bi stocké nañ ba amatuñ fuñ ko def état bi moo war a bàyyi ñu génne gerte gi wala ñu tere leen ñu bañ a jënd ñu fab gerte gi jaay ko usine mais état bi dañ leen a jëndloo ba pare te bàyyiwuñ leen ñu ko xam nga réewum jàmbur nga stocké yi xaw a état bi moom daa daa daa melul neen waaw dañoo taxaw parce que stocké nañ magasin yi ne ci dëkk bi ba pare te yóbbuwuñ ko fi mu ne nii moom daanaka jëndatuñ ñu ngi fi rek taxaw waaye jënduñu. Abdoul Ahad Samb waaw luñ ci gis waaye nañ ko yaakaare woon demeewul noonu moom. prix bi am na ñoom arrangé am na ñoom arrangé wul hmm? man li ma si am de maa ngi koy maa ngi sant yàlla. Hmm? man jaayo guma nguur gi de hmm. sunu waay que hmm. oh, ma doon jaay dama naan enseigné moom waaw waaw fi de gerte moom dañuy ñëw ak a dem rek waaw day dem ak commerçant la commerçant daal lay doon waaw tay moom xamuñu xamuñu ñu ngi tey suba xamuñu danañ ko fekk am déet ñu ngi tey tey tey ñu ngi tey démb yàlla ñu ngi tey suba xamuñu lu muy doon. déedéet mën na ñëw mën na soppeeku ndax tey suba man nga toog yow tey man nga toog suba jébu jën suba nga toog dama daa noonu la noonu lay demee noonu demee rek. man El Hadj Sarr Touba Mbacke gerte amut gerte gi amut gerte gi boog ren gii. bokkut ak daaw dara yàlla def lu ko neex. ñu ngi jaay bu baax. noonu ko bëgg ñu jaay la comme ku bëgg leen man rek ñu jaay la amul chinois amul leneen. Euh, noonu dara ak ñun ñëpp leen yemale ku man li ñu man ñu jaay la chinois ak gouvernement leen yemale ku ku man leen bëgg ñu jaay la waaye kenn du gis fukk di jaay juróom ku dof itam suñuy bokk dofut waa gis ngeen ko nag gis ngeen gaar bu ni demee comme niñ leen ko waxee woon rek wax nañ prix gerte bi ñaata la wax nañ ba xam sinwaa yi ñoo koy jënd wala nguur gi kon yaakaar naa ne fi mu nii dara ump leen ci euh, xam ngeen lépp tey nag ñu ngi ci àndoon ak suñu caméraman Diouf yaakaar naa ne 24 actu moom mooy site bi nga xamante ne nii xibaar yu leer te wóor moom moo koy joxe dara ump leen fii nag euh, ci li nga xamante ne nii moo xaw ci gerte gi ba beneen yoon incha allah ci yeneen i reportage